jërë ngeen jëf internet SOS live 221 daal leen ak jàmm ñëw tënk leen li fiiru seeni xibaar jëm cool tàggat yaram drapeau Double Less diggante Gris ak doomu dangu bi vingt 26 mai dinañ ci walla laata loolu ëttu yéen kay biir suñu lamb bokk na ci tamit lu mu def ci xetam mu njëkk muy encore un derby diggante Guédiawaye ak Pikine majj majj war a jona ki nga xam ne moo di macha allah niki àllarba jile Ouzin Production moo daal di nag euh, décider euh, l'inarrêtable Eh, gannaaw nag neuvième journée bi nga xam ne organiser na ko ni ki mercredi huit mais moom structure bi dafa ñëwaat rek foofu nga xam ne moo di ci arène national ngir dixième journée eh, ci saison bi nag mu nekk ni ki àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai eh, diggante ki nga xam ne rek kon moo di Madj Madj ak macha allah àllarba lay doon ci arène nationale en 2019 diggante la guerre bu waalo nag moom dafa amoon victoire rek ci ki nga xam ne moo di Boy Niang foofee ci arène national bu pikin Euh, gannaaw nag recours boo xam ne rek teg nañu ko si CNG de lutte euh, moom daf ko daal di jox li nga xam ne moo di euh, ndam moom nag kon jàppale ni structure bu nu mel daal gannaaw combat yooyu bàyyagul benn yoon ndax nag ni ki àllarba ji dee fas yéene yëngatuwaat ko fecc ci arène nationale. Gris 2 ak Dangu ak doomu Dangu nag ni ki le 26 mai lay doon ci drapeau dem ci yàlla Double Less structure bii di yaram a Euh, bu promoteur bi nga xam ne nag dafa décédé nag euh, wala sax ñoom ñoo décidé ngeen baal ma rendre hommage ki nga xam ne moo di feu Double Less bi nga xam ne kon euh, génn na àdduna moom nag loole ni ki benn gala lay doon ci dimanche bile ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai ci combat war dox diggante Gris ak ki nga xam ne moo di doomu dàngu mu nekk benn geste nag boo xam ne lu ñu war a saluer à sa juste valeur Eh, ci ñi nga xam ne nag ñoo di amateur de lutte mu nekk drapeau Double Less foofu national ni ki vingt 26 mai biir ñu dëgmal lay doon bu ci yàlla àndee. Eh, gala Modou Baye Fall lundi Boy Seye 2 Mor An Konda en 47 secondes kon moom Boy Seye moom ca 47 secondes rek ci la daal di rek jeexale digganteem ak ki nga xam ne moo di Anaconda eh, arène bi nag nekkoon en fait nekk lundi bile ak gala boobu nga xam ne moo di gala bu Momo production. diggante Boy Seye de ak ki nga xam ne nag moo di eh, Anaconda bu écurie Sakku Xam-Xam Boy Seye 2 ci écurie Boy Seye daal di remporté nag li nga xam ne moo di grand combat bi ci seen diggante ñoom ñaar mbokk yi jërë ngeen jëf li mënoon xibaar ci bële vidéo yeneen rek ci yeneen vidéo lay doon bu cande laataan la woy leen di like di abonné ci chaîne chaîne ko déggan ci page bi te abonné ko rek ñoo ngi leen ñaan nga abonné activé sa eh, su ko defee lu dugal ci vidéo nga bokk ci ñi ko njëkk a jot cant ak ngërëm ñeel na leen 14 régions du Sénégal fa leen ja ne diaspora bi kenn demul ngeen des jërë ngeen jëf léeg-léeg yeneen i xibaar rek ci yeneen vidéo lay doon bu ci laande cant ak ngërëm na leen jërë ngeen jëf.